asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wex wenn waxtaan wu gàtt rek fas yéene tey waxtaan ak e, yéen ci mbirum e, Pape Alé mi nga xam ni fan yi weesu yépp yéen a ngi dégg coow lu ko topp ñu indil ko ci ay jafe-jafe ba am na fu mu ci jot a jaar ak yoon yóbbu nañ ko ci police daanaka mu fanaan fa mbir mi nag faaw ñu joxoñ ko baaraam wax ne bu ñu xoolee doxalin wi procédure yi daf mel na tuuti acharnement am na ci ndax mel na ni ki nga xam ni moom la ñi nga xam ni ñoom la seqal mbir mi ñooña dégguñu fenn fu ñu tuddee seen tur wala bokk wonewuñu ne ñoom daal mbir mi waroon nañ leen cee boole ndax lu coow li di bari bari mbir ma du moom dongo li nga xam ne nag moo ñu yitteel ñun ci Pape Alé Niang du vie privée am déedéet vie privée euh, euh, Pape Alé moom soxlawuñu soxaluñu benn yoon li ñu yitteel mooy li nga xam ne moom lay def te di ko defal am réewam ndax li nga xam ne moom la mujj a def mel na na loola bu ñu ko toppee dañ koy daal di bëgg a delloo siwaat ci li ko mujj a dal nii muy téereem boobu nga xam ne moom la bindoon siwal ko wax ci ay wax yoo xam ni yii moom foru ko sosu ko créer wu ko da koo jële ci ay source yu wér source ya nag dafa waroon moom buy buy ki nga xam ni kii moom moo doon euh, jax ñaxtu ak a jàmbat euh, ni mu ci tuddee Mody Niang tudd ci euh, Nafi Ngom Keïta waroon na cee tudd président de la république ndax OFNAC président de la république moo ko créer jox ko ay moyens wax ko ne ko defal ma kon am na loo xam ne lii théâtre la gën a nuru comédie ndax bu ñu demee ba di wonee euh, Pape Alé Niang ci euh, kanamu koo xam ne kii dafay jëfandikoo sàngara di dawal oto di di mbëkk ay nit ak ay miir ak ay këfin loolu mooy dañ ko bëgg a tilimal tilimal lañ ko bëggal moom nag euh, li nga xam ne moom la ñuy liggéeyal moo ñu amal solo mi ngi def loo xam ne lii lu am solo la ci euh, askan wi mooy yeete tànk nag moom soppiwul aw doxalin tànk fekkul ne lii nga xam ni moom lay def da koy def ci njëriñu boppam maanaam di coowandoo comme li fi daan xew ndax ñeenti journaliste wala juróom léegi mën naa leen ko fee libal yoo xam ni lu mel ni lañ fi nekke woon lu mel na li Pape di def def nañ ko ñii bind nañ ay téere ñii def nañ ay émission ñi bokk nañ ci ay télé di bokk ci ay débat di wax di wax di wax ba tey ji ñooñu tey ña nga ca euh, donkaasi gi moo tax ñoom itam mënatuñoo wax dara ña nga ne pat génn ca coow la te ñooñu bu dee ay at ñoo ci mag Pape Alé xëy na mënuñu leen a natt ci ay jikko li wérte wóor daal mooy moom Pape Alé moo ko waxal boppam jikkoy wutkat du jikko jikkoy wutkat du jikko ñi nga xam ne nag ñoom la ko seqal muy Omar Anne nga xam ni moom dem na jël avocat bi nga xam ni maanaam jikko moo ko gën a manqué le ci Sénégal jikko moo ko gën a manqué ci Sénégal ndax ku ne gis na ay façon am saaga ay nit publiquement nit koo xam ni kii danga nga waroon a nekk exemple référence ngay taxaw publiquement di saaga ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ndiiraan nga gis mu nekk nit koo xam ni ki dafay wax tey dara ëllëg mu génn ca tey mu wax lii ëllëg mu génn ca kooku kenn mënu ko considérer nit ku normal ba pare nag gémmiñam ay musiba rek la ciy génnee dégg ngeen ko bërki démb mu naan dañoo waroon a fital Guy Marius Sagna bi mu demee ca pale ba fital moom mu rekk ci jekkoon bu doon ci réew mu normal moom sàkkal nañ ko pexe bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ndax façonu nit boobu moo dul façonu nit bu ñu soxla cim réew su la neexee wax lii su ëllëgee nga wax la ca des su la neexee mel nii su ëllëgee nga mel ne ca des di defi théâtre di defi comédie di reeloo nit ñi yooyu nit ku manqué rek koy dund nit ku manqué moo koy dund kon kooku ay waxam jarut wax ba nga xamee ne jël nañu kooku avocat nga war a xam ne ñi sérieux wuñu ci li ñuy def moom Pape Alé nag façon biñ koy combattre xam na ne arme yu delluwaayal la waaye su ma amoon moom benn conseil bu ma koy jox mooy mu mallu moytu boppam nag ndax moytu sa bopp ci jaamu yàlla la bokk Pape Alé àgg na ci daraja boo xam ni bii tey ji su fekkee ne xamu ko dafa war a dem ci ay nit ay mbokkam ñu xamal ko ne ko nag dootuloo nit ku ndaw ci dëkk bi ndax jëf nga fi ay jëf yoo xam ne yi amal na askan wi njëriñ ba àgg nga ci daraja joo xam ne ji amatoo droit di wax ku di mel nu la neex di dox waxtu wu la neex di ànd ak ku la neex di def lu la neex da nga war a am yow auteur par rapport ak say acte coow loolu ñu la fi coowal ci wàllu euh, euh, sàngara su fekkee ne àgg nga ci benn daraja boo xam ni tey tey tey yàlla mën na laa defal xéewal nga xëy bokk ci ñi yilif réew mi war nga xool sa comportement xeex ak sa bakkan ba nga xam ni loolu bu fekkee dañ la ko waxal yow nga génn ci maanaam waxi ay naan naag mandi naag da daanu ci mbedd bi loolu su dee conseil bu ma koy jox loolu laa koy jox ndax nag il faut pas prêter la flanc maanaam mayee lu nit ñi buntu buñ la mën a jaar moom Pape Alé Niang fekkoon na mu waroon na fekk mu mu sakk bunt yépp donte nag saay-saay bu lay fexeel moom bunt bu ne lay jaar bunt bu ne lay jaar waaye mel na ne par ale bunt yi mu war a sàkk ba tey des na ba tey bunt yooyu des na man nag wax dëgg yàlla xamuma nit ki approché wu ma ko dundu ma ak moom euh, waaye coow nga xam ne moom lañ koy coow te muy deuxième fois waroon na fexe ba bu ñuy waxati laal bunt boobu moom duñ ko mën a ubbi ak bunt bu ni mel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.